da nga bàyyi ñu liggéey wala nga bàyyi bay baa waaw kay ñëw daw la merci rek euh, Pathé Mbengue tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo di adhésion précoce euh, ndaw ñi ci wàllu politique maanaam ndaw ñi teel gi ñuy teel a dugg ci politique pour yow lan moo ko waral. alors déjà damay damay am mbégte a contentement di ñëwaat ci plateau bi donc euh, tey moom mooy jeudi. je pense que chaque semaine euh, jeudi lañ ci am pour wax mais à chaque fois bu ñuy wax addu jëmale dañuy am yéene vraiment ñu wax loo xam ne lu lu am solo la ci suñu ay moroom tàmbalee ñaax ji suñu bopp ba pare doog a addu si la jërëjëf donc li li waral euh, lu ni mel moom mooy comme ni ma la ko waxee euh, si si tàmbali bi c'est-à-dire dañoo seetlu nekk bëri ay ndaw ñu nga xamee ne maanaam à partir de ay 16 ans 17 ans 18 ans jàpp 20 ans au grand maximum 30 ans ils commencent à faire de personnellement ma jàpp ne que c'est de la précocité en fait précocité bi c'est pas parce que c'est des jeunes c'est pas parce que 15 ans lañ am wala 20 ans wala 30 ans mais parce que tout simplement dimension euh, formation bi dafay manquer. Mhm. parce que tout simplement ñu bëri ci ñoom maanaam dañ ciy dugg parce que tout simplement jàpp nañ ne que fii la yoonu tekki bi gën a gaawe mhm. dañ ciy dugg euh, te amuñu formation je me répète formation côté politique. Mhm. formation aussi côté métier. parce que politique du métier danga koy am habitude di koy dégg souvent. Mm. donc souvent nag dañuy gis certaines personnes ñu nga xamee ne que dugg nañ ci parce que en fait euh, euh, conviction moom boo lañ ci dugal. Mm. c' une très bonne chose. parce que ay ay ay engagement propre personnel moo leen ciy dugal c' est une très mais loolu jarul ñu ñu ñu ñu si ñu si attardé parce que noonu la war a demee. Mm. d' habitude amoon nañ habitude di gis euh, y a cela quelques années ci ginnaaw. Euh, ci yenn ci parti politique ñuy former ndaw ñi ci yëm ci ci ci xam-xamu politique. Mm-hmm. exemple mën naa joxe l' exemple le plus patent mooy parti socialiste. Mm-hmm. amoon nañ lu ñu daan wax sous le contrôle de Assane na ma koy wax muy l' école du parti. Mm-hmm. ñoo xamee ne que dañ daan dañ daan former seen ndaw. ñoo xam ne ay bas à partir de 15 ans 16 ans Khalifa Sall fa leen génn exactement donc lan mooy fondement wu socialisme au vrai de son terme. Mm. donc ba bu ñuy amee pour di àddu jëmale ci ñu mën ci wax loo xam ne nag lu consistant la lu concret mais depuis pratiquement quelques années ci ginnaaw intervalle 2000 jàpp 2005 donc dañuy gis dugg ci politique Pathé Mbeng da dugg parce que. jàng na une année deux ans à l'université affaire yi commencé di capoter mu jàpp ne que su duggee ci politique dina dina am dina dina dina am issue boo xamee ne c'est un peu heureuse que li mu amoon li mu doon yaakaar est-ce que loolu nga war a demee est-ce que dugg bi ci politique loolu moom ko moo ko war a animé mhm. d' sax question boobu man damay bàyyi kenn ku ci nekk ci yéen <laughs> ngeen jox ma ci c'est-à-dire dugg ci politique lan mooy li ko woon waral selon mhm. selon selon yow Aïcha bon man euh, selon dugg ci politique déjà euh, daraan metti bu njëkkaan mhm. par exemple par exemple ay jamonoy euh, ay Thomas Sankara jamono jooju duggaan ci politique lu métti la daan nekk parce que temps boobu colonialisme bi moom ngi fi desoon ndaw ñi bu ñu taxawee pour dévotion moo taxoon doon engagé wu pour détermination mais également génne Afrique ci guut gi nga xam ne nekk na ko rawatina tubaab yi fi mu leen noot mm-hmm. euh, lu ko demee ni par exemple ay euh, Euh, père apartheid par euh, exemple euh, Nelson Mandela ñoo ñëpp tey bi ñuy nekk ndaw la ñu dugg ci politique mais détermination moo taxoon ñu dugg ci mais tey jii dañoo am impression comme ni nga waxee ndaw ñi bu ñuy dugg ci politique dañ ciy xool maanaam nan la ñu mën a fexe ba duufal seen poche malheureuse malheureusement mhm. loolu moom moo tax mauvaise gestion yi ci ci maire yi gox yeeg yooyu yëpp daal di fës xam naa ñëwal feneen ma daal di daal ma daal di dem feneen ndax man li ma a wax bëri na sëñ bi Bamba loolu donc euh, li nga wax euh, am na solo euh, xam dama daan gis ne xam naa ñi ñi ñi ñi ñi ñi philosophie yi mel ne suñu asan xam naa dañ ko mën a dañ daan wax ne ceux qui ne font pas de politique. Mhm. sont responsables de la politique qui se fait. ah, ah. léegi lan mooy li ñu dugg fekkee yow léegi da nga da nga toog par exemple gis benn mbir. Mhm. nga xalaat ni yow mën nga si yokk dara. Mhm. wala nga changé ko. mën nga nekk fenn nekk bokk pare yokk. mën nga nekk fenn changé je pense que moyen bi si gën a gaaw mooy politique mais politique moom. day fekk mooy gérer la la la société de la cité de la de la de la société. normalement normalement nit ku si dugg. Uh-huh. dafay am am te nit ku nekk aussi dëkk bi si ñi ko moom nga bokk. Uh-huh. donc li koy doxal. si uh-huh. nga war a bokk. très fu munti doon. merci beaucoup Mbaye Waakar lan moo war a tax nit dugg ci politique. waaw politique. Ah. Euh, ci ni ma ko gisee mbir la moo xamante ni mënta ñàkk. faw nit def ko. Ah. waaye li tax nit war koo def ci am réewam. li ci jiitu mooy bëgg am réewam hmm. ndax yonent bi dana bëgg sam réew hmm. ci ci ngëm yàlla la bokk waaw bëgg sam réew hmm. léegi nag réew mi bëgg googu nga koy bëgg ak li sëñ Bamba wax léegi nga xam ne da ngay am loo xam ne da koy gis ngir bëgg ko caa yokk wala ngir bëgg ko caa wàññi te nga gis ne politique yoon la woo xamante ne yow mën na laa yenkeewal nga egg ci loolu nga dem dugg ci politique bi ngir boo ci amee la nga bëgg yokk loola ci sa réew wala nga wàññi loolu ci sa réew ci bëgg gi nga bëgg sa réew mais su loolu amul rek euh, bu ko leneen lalee soo moytu boo ci duggee rek yàq li li am ci jamono am waaw wala boog le grand petit Assane <laughs> parce que euh, ñoom résumé li war a tax nit dugg ci politique mm-hmm. c'est-à-dire am un plus value boo xamante ne yokk nga ko ci sa réew mm-hmm. euh, bu fekkee nii si sa liggéey mm-hmm. eggul fi nga bëggoon mu egg par rapport ak li nga bëgg yokk si rew mi mhm. nga xamante ni en politique il faut que yenn changement yi am pour nga mu li nga bëgg mën a egg mhm. nga bëgg a dugal sa xol ngir changement yooyu am. comme yow très <laughs> pour ne sa sa te nga bàyyi Assane. <laughs> mu ngi koy mbëbëtu de. Euh, mu ngi togg projet bi pour ne sa sa le terme ah, précoce. ma def directrice de campagne rek mm. naan ma. am nga dayoo ci réew mi nekk sama directrice de campagne jox message de communication. <laughs> pourquoi ñu ñu wax précocité en fait parce que dañu jàpp ne que c'est day précoce ci ñenn ñi parce qu'ils sont pas préparés. day précoce ci ñenn ñi parce que xamuñu exactement au vrai sens li fondement politique lan la. autant dañu amoon socialiste ak libéraliste libéraliste les socialistes et les libéraux ñoom ñaari ñaari ñaari euh, camp yi nga xam ne ñoo ëpp doole wala ñoo ëppoon doole en tout cas fii ci Sénégal ba jusqu'à présent mën nañ wax ne ñoo fi ëpp doole donc présentement dañuy gis ne que certains d'entre ñun ci jeunes yi dañuy dugg ci politique mais ñu xam entre guillemets lan mooy li ko waral donc déjà on interpelle directement les parti politiques yi fi nekk en tout cas ñi nga xamee ne que am nañ doole ji ñu jëm ko def euh, amoon nañ waa APR commencé woon nañ ko depuis un certain temps mais déggatuñ ko gisatuñ ko. Mm. dégg nga donc loolu déjà interpellation la boo xamee ne que man personnellement je le fais directement. Mm. autre chose moom mooy dafay dafay baax aussi boo jógee ne damay am pour liggéeyal sama dëkk damay liggéeyal sama réew nga am une formation ba balaa dara. Mm. parce que bu ñu waxee la politique c'est quoi moom mooy l'art de bien gérer la cité. si définition bu gën a bu gën a bu gën a répandu en tout cas bu nit ñu gën a xam je pense que yoon la boo demee ba ne da am yéene gérer wala boo inciter à une bonne gestion nga am une bonne formation cest dire nga bu dee journaliste la nga nga nga jàng sa métier comme ni mu waree. bu dee tu es un manager en matière de tel nga jàng comme ni mu waree parce que boo amul euh, formation doo mën a taxaw ne damay gérer tel. li nga mën def moom mooy alors comme ni ko ni ko ni ko politiciens yi di defee pratiquement moom mooy taxaw wax. ŋàññ wala xas wala saaga wala wax ay wax yu nga xamee ne que yu yu yu yu ñaaw la mm. sànq maa ngi wax ne que aux environs de 2005 2000 jàpp 2005 fa lañ seetlu ne que mm. fa la affaire yi gënoon gënoon gënoon ñaawe mais malheureusement ça va de mal en pire mm. pourquoi parce que tout simplement ñi nga xamee ne que ñoo ñoo war joxe les bons exemples euh, les bons exemples autant pour man defu defuñu ko ni mu waree mm-hmm. pourquoi parce que boo xoolee façon bi nga xamee ne que noonu la politique di doxee au niveau fii ci Sénégal boo jugee yow ndaw di ci dugg ñaar moom ngay bàyyi xel la plus naa am mbooloo au lieu nga war a jiital naa am xam-xam mais naa am mbooloo ngay njëkk a wax première chose deuxième chose moom mooy naa naa jéem a défense ba ma am xaalis mhm. parce que boo amee mbooloo di nga mën a di nga a a am yenn poste de responsabilité boo amee xaalis di nga mën a xëcc mbooloo mi mhm. donc déjà mu nekk genre dénaturalisation wala genre détournement yoo xamee ne dafay am ci biir si si si si langue politique euh, ñu ñu ñu jàpp ne que c'est c'est déplorable et mhm. effectivement c'est déplorable donc objectif principal bi comme ni ngeen ko waxee moom mooy ñu jéem a def en sorte ba apporter notre pierre à la construction de de de l'édifice en tout cas daal ku fi jàpp ne njiit bu fi jàpp ne euh, ndaw ñi yeewuñu mhm. ndax nga nga xamante ne nii moom le président Macky euh, Abdoulaye Wade bëggoon nañoo forcer tikki présidentielle am bi ndaw ñu ñoom ñoo jóg daal di révolté gi mhm. doog leen fekk si si xeex gi ba ñu gis si di ci am yëpp euh, tey jii li problème Sénégal moom mooy bu ndaw jógee tey jii bëgg a mhm. taxaw temm ne dafay dafay wane boppam ci langu politique gi mhm. lu ñu njëkk a wax moom dafa bëgg a xaalis wala dafa lii wala dafa teel wala dafa lii au lieu ñu ñu koy dooleel euh, am na des a nekk

lañu depuis temps Senghor ba tey ñu ngi fi et c'est malheureux mm-hmm. te malheureusement ndaw ñi ba tey dañuy ragal pour dugg ci langue politique bi ndax boo ci duggee et tamit mag nga xam ne ñoo fi nekk di la gasal ay ndigg sërëx di la def yoo xamante nii après ndaw ñi duñu am euh, courage c'est là où je voulais dire indirectement indirectement ils ils encouragent la médiocrité Ah, tout à oh, fait gis nga à la place de au lieu ñu encourager li nga xamee ne que maanaam xam-xam la mm. c'est-à-dire man fi dama jàpp na sa euh, fi ñu fi ñu faussé débat bi fi ñu foosee doxalin bi mooy du moment que ñuy ñuy wa jox ñi ëpp mbooloo boo seetee mm. ñoom ñooy chaque jour ñooy am les mais post yu gën a baax mm. au ñu xool ñi nga xamee ne que ñoom ñoo war a ëpp xam-xam gis nga gis nga mu nekk affaire boo xam ne c'est def loolu Assane yaa ngi ree <laughs> en fait une preuve si li nga wax léegi nii uh-huh. le chef man damay toog souvent sama xarit di nekk à la période naan leen c'est un jeune vieux. Ah, uh-huh. parce que. <laughs> non c'est l'expression par par par par son âge. Uh-huh. par rapport ak euh, période bi mu juddu. par uh-huh. rapport ak euh, ñi nga xam ñoo la bokk génération mais. un ancien par rapport ak ñi ko wër. par rapport ak ses conseillers. par rapport ak doxalinam. sànq euh, ngir indi preuve si li nga wax. yàggul dara. Mhm. ay fan rek la def daje nag euh, c'est communicant. les communicants yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar. mun naan leen chaque fois da ngeen di kaas ni cadre yi lañ war a fal ñoom lañ war a teg ci post yi mais nag li ngeen war li ngeen war a xam mooy ñi ngeen jàpp ñeneen ñi nga xamante ne duñu ay cadre wala boo amuñ xam-xam ñoom ñooy dem falu ji parce que ñoom ñooy dem ci élection yi bu ngeen tasee ñoom ak cadre yi ñu duma leen. am benn terme bu mais c'est a raison il a raison a raison li mu wax lu dëgg la de dëgg la da ngay am parce que politique quand on parle de politique représentativité d'abord bu fekkee da nga bëgg a falu mm-hmm. faaw am représentativité te Pathé pour venir un peu wax mm-hmm. problématique bi moom mooy sa uti xam-xam xam-xam bi ndaw gi war a am laataa mooy dugg ci politique. wala dugg ci politique wéyal uti ci xam-xam. Mhm. parce que quand on prend des exemples sànq Aïcha eh, mi ngi koy tudd Khalifa Ababacar Sall. Mhm. quand on dit que 12 ans xaw ma 15 dugg parti socialiste. yow tu te dis que kii il a mhm. kenn mënu bañ wax kenn mënu ne amul xam-xam. il a prouvé am na ko jaar na si ay gouvernement jiite na mairie de Dakar et montre a quelque chose. parce que loolu li ko waral moom mooy euh, <coughs> li mu am comme formation. au du Parti socialiste et à un moment donné il faut que ñun ñu comprendre ne fi ñu toll nii idéologie mhm. ci wàllum politique dafa disparaître exactement non dafa jeex dafa jeex régime yooyu hmm. ak ni doon doxee hmm. déjà c'est en déphasage ak ñun fi ñu toll nii au Sénégal sérieusement mhm. muy libéralisme ak mhm. muy socialisme ak liñ gëm ak niñ doon doxale non dafa am déphasage par rapport ak sax suñuy réalité ñun il faut que ñun ñu adapté wu et il faut savoir une chose boo xamante mhm. dans quelques années ku amul xam-xam doo politique Sénégal le discours commence à changer mais doo wax lu nit mën a dégg. ndax gis nga àdduna àdduna mhm. xam-xam moo ko yor akum réew réew xam-xam a ko yor gis nga mag ñi mag doon politique mhm. li nu njëkkoon di jiital mhm. mooy xam-xam dañ daan dem ba ba taxaw ci wàllu xam-xam doog a ñëw di wax waxi politique ak waxi jiite ak waxi yor ndax bu loo xamul mënoo ko def waaye ñun li nu xewal ci réew mi moom la kenn xamut mën a la wax réyal aw làmmeñ mën a xaste mën a saaga fexe ba dajale mbooloo soo amee xaalis dajale ci ay mbooloo ñu fal la te loolu nekkal nekkal sa sa koñ nekk fa leader politique waaw pendant quinze ans nga géré koñ mhm. mu tuxu si fa ren tuxu andi nga xaalis rek milliard booy indi xaalis ñëpp ñu dem ci waaw kon nag ñun ndax population bi ñun tamit amuñu ci part de responsabilité. léegi nag man sama léegi man sama wax moom mooy lan <laughs> gis nga ñun ndaw ñi. Mhm. ñi ngi fi njiit nekkoon ci wàllu woowu ñoo faussé seen départ en politique. je te je vous parle pas de ñi nga xamee ne ils étaient là avant l' mais ñi nga xamee ne après l' ñoom ñoo waroon révolutionner andi mhm. une autre manière de faire ñooñu ñoo fay à sa moom moo tax suñu jeunes yi comme exemple une personne comme Pathé Mbeng pour ne pas dire Assane su amee yéene def politique automatiquement dafay xool doxalinu ki nga xam moom moo nekk woo ko féete mag tuuti ni muy doxalee su dee alal danaan damay dem tukki ña euh, wàcc nit dañ koy dem jàng ko pratiquement sax am na ay sama daanalee foofu ah ñoo xam ne dañuy dem suñu war a dem débat exemple débat politique dañuy dem xool li gën a ñaaw ci Babacar Mbaye Babacar ni ñu war a jàkkaarloo loolu la ñuy tàmbalee pour déstabiliser ko ce qui n'est pas noble ce qui n'est pas respectable ce qui ne valorise pas en tout cas donc l'aspect bi ñuy wax maanaam euh, politique quoi loolu foofu la ñuy daanalee Aïcha nga xam ne moom moo di changement bi ndaw mi Sénégalais yi bëgg comme Assane Sank livre la ko tëjee man aussi livre laa leen jox rek politisez-vous bu Fanta Diallo c'est un bon euh, livre buy wax ci wàllu euh, ndaw ñi seen engagement ak seen dévotion ci wàllu politique man euh, lire naa quelques feuilles bien vrai que yeggali moom Moussa Fall li may xase doo yeggali livre mukk <laughs> Fatou maa a baax maa ngi lay jaajëfal Aïcha di bég bu baax a baax ci alors intervention gars yi di ba euh, jaajëfal bu baax a baax donc euh, Issa mbay mbay ak ki nga xam ne moom mooy euh, Souleymane doy donc di bëgg aussi ci ki nga xam ne que moom mooy Chérif Chérif depuis Petit Mbao nag le grand mannequin xam nga bon séjour. <laughs> est-ce que du sa waay sax demal ah, le grand mannequin ah. <laughs> ayca mu ngi noonu. acca mu ngi noonu jërëjëf <laughs> Pathé ngi la woon euh, tey mu doon indi sujet bu am solo euh, xam naa ne bu ñu ko doon waxtaanee du fi du fi du fi jeex ah, muy wàllu euh, ndaw ñi ak seen soobu ci wàllu politique.